asalaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci ñëw bi suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi di ndokkeel sénégalais yi ci carême catholique bi ak weeru koor bu ñu dëtmal je suis fier d'être sénégalais je suis fier d'être exclusivement sénégalais ñu buggoon jalgati suñu élection yi gis nañu peuple sénégalais taxaw maa ngi jaale askanu Sénégal suñu doom yi ci faatu ànd ak conseil constitutionnel delloo ñëpp ci droit delloo ñëpp ci constitution yëkkati suñu modèle démocratique Sénégal nag mi ngi ci célébé yoon xale yi tiit nañu jaaxle nañu ngi jël gaal yi di dem jigéen ñi jaaxle nañu dund gaa ngi gën a seer Sénégal dafa soxla kilifa bu ànd ak dal ak tey am xam-xam fonk xam-xam mandu ci alalu réew mi ci alalu jàmbur nangoo diisoo déggoo liggéey sàmm suñu kàddu ci biir loolu nag maa ngi leen di tàllal loxo ne leen ñëw leen ñu liggéey ci suñu agenda de redressement national defaraat jikko yi gën bëgg Sénégal fonk askan bañ a am complexe sàmm jikko yi ci biir loolu ñu jël suñu éducation ñu jël suñu pàcc mi suñu sport jël institution yi président de la république yàgg naa leen ko wax il a trop de pouvoir ak man lay dak mairie assemblée nationale administration trop politisée yaatal suñu koom-koom xale yi am liggéey ñu andi usine ñu mën a tekki am njëriñ fii ci Sénégal jàppale seeni waajur surtout seeni waajur yu jigéen suñu kaaraange ñu yëkkati ko ci biir Afrique de l'Ouest tey koog suñu ñaari loxo chers concitoyens ensemble avec vous nous pouvons exécuter l'agenda de redressement national qui ouvre les portes de la grandeur du Sénégal nous pouvons ensemble d'ici 2040 2045 faire du Sénégal dans l'Afrique de l'Ouest l'une des dix plus grandes économies du monde et c'est possible je vous y convie maɗin maninkol mal konton mal jayla mal tentul albe si hakkilotu nagi agenda de redressement national bandiraɓe fulfulɓe mi moon mi juuri moon hoɓɓe hakkille moon nder ayren